ndax bu yàggul danga jox xaalis kenn koo xamante ni ci politiku France la nekk ndax ci douze millions d'euros la toll ndax da nga nekk ci situation boo xamante ni da nga bëgg a reporter élection présidentielle yu 2024. ci ab bataaxal la rek kii di Hadjibou Soumaré dellu see ci bataaxal boobee nag. mu cay rek samp ay laaj laaj yooyee nag waral rek ñu jox ko rek ab convocation ci sûreté urbaine. procureur euh, am na droit su gisee loo xam ne wala ay jëf wala ay wax yoo xam ne lenn ne lii dafay ñëw lu dëppoo infraction contre la loi ñu jëmale ko maa xam ci institution réew mi wala ñu jëmale ko ci bànqaasi réew mi wala ñu jëmale ko ci nit am na doro mun a police enquêtel ma ci lii wala lépp loo xam ne daal dafa indi jiixi jaax ci wàllu yoon am na droit am a police enquêtel ma loolu enquête de routine la. bu fekkee ni ñenn ñi jàpp nañ ni rek deful dara lu garaaw loo xam ne rek mënees na ko ca jox ab convocation loi ba nag wax ca leneen. léegi nag euh, bu nga xam ne bu nekkee procureur dafa jël dogal ne dafa topp mbir mi ba mu sës su boobaa aussi daanañ ko ci xaar mooy euh, mën na jël ay daanu ñeenti weer jàppu euh, ñaari atu kaso après ñu alamaan ko alamaan tamit mën naa dem ci téeméeri junne jàpp million ak genn wàll. bu ñu sukkandikoo ci yoon nag wax ay mbir wala rek bind ab bataaxal boo xam ne nag mënees naa xam. ka ngay duut baaraam loole procureur mën naa ubbi ab information fii nag mbir yi mën a gën a garaaw ndax it ka ñu dut baaraam moo di rek njiitu réew mi.